waaw kay mbaay tata Mbodj man daal benn problème la am man daal sama jëkkër ji su ma jàkkaarloo moom buy sëy ak man man daal taal dama koy rus a xool <laughs> ah ah, ah eh, eh, eh, la nag jàkkaar xale bu jigéen bi nag yaa waaye di nag xanaa na bës jëkkër ji kon yow doon gàddu moi ni mu neex yow xool ni jàkk ni ni mu neex dina sant nopp la lool mais te ko boppam di métti yow li sa problème yéen xale yu leen wax ak yéen kersa gi ma tey mi ci biir néegi di dëbb di ko di ko dëbb ba mu mel ni suul ak bëccëg xale jigéen ci baree baree bare du tax duma la xool man et eh, lan moo tax man duma mu nekk ak yow nii <laughs> regard ba nag tarkal la ma war la cee mën a xool di la yëg di maa ngi lay sentir di la wax ni yaa ngi koy jox ndànk nii bëgg naa la di la confirmer je t'aime nga may kott nii ma naan moi aussi muy neex xanaa xamul ne sëy dafa am ay feem yoo xam dafa nekkaale ci biir yoo xam day yokk amour bi day yokk mbégte gi day tax su ko góor ki am envie man mu rusa xool sama sëy bëccëg yow nga rusa xool sa jëkkër xanaa ko doo taal làmp bari ko mën a xool nii am góor yoo xam bu nekkee dañ lay xool nii ba nga gis seen peru bët ba ca biir a a biir <laughs> deuxième bi maa la mere moo tax ku yaakaar ne xale yëpp a féroce nga am na ñu mësul féroce am na xale jigéen yoo xam ne noo am kersa moo tax yaay yii sant leen boo jàmbaay nag te gërëm ko yéen yaay xale jigéen yii yéen ñu ma war a mën a xas seen bokkoo ci ndax yéen may dimbali seeni doom ci biir kër yi jéeg yu bari yu tas say bu ñu teeloon a moo jàmbaay du ñu tas tey ñàkk xam nangu ko dara newu ci xale jigéen yi bari dañ leen tëj ci kër dañ leen ci kër ba say jot ñu ne leen bu xeet di góor a ngi xamuñu dara encore une fois tey internet bi bari yàlla jëppee fi Mbodja Mbaye ni ko waxal ma lii nag xale yi gis ne ko toppatoo seen sëy yi nga ko tëjal sa gémmañ gi man yéen yaay xale jigéen yéen ci boppam ñëpp daw ñoo def ma yaay ana seen yaay parce que xamalul leen dara jàngalul leen dara kon sant leen yàlla ba internet bi ñëwee ba nga am maman Mbodja Mbaye lu ngeen jaaxal dañoo laaj ko ko le problème bi yaay yaay yi da ngeen war a xam ne yéen ak seen doomi jigéen ay morom ngeen lan ngeen ciy nëbbatu lan ngeen ci am kersa Sénégal ngeen bëgg a jël lii rek def ko si cité tabou kenn du wax loo wax bi ne jagal la loo wax ñu da a vulgaire xale yi daw wut si ma ne ma Tata Mbodj yow la boo coowee coow li boo coowul coow li bari téema coow coow li bari man la <laughs> xale yi daw ma yëpp may seen yaay naan la dee ko defi nii na kuur gi dëbb ci gën gi ñëpp di daw di ma laaj doo xam ñi ma ñu koo laaj seen yaay maa ko liggéey ana seen yaay suñ koo xamoon duñ ko laaj moo tax yaay yi dee wax ak doom yi ci kër yi yéen ngi sànq seeni doom am na ñoo xam ne jàngal école lañ la digal ñëw ci kër gi toog soo ñëwee bare raxas foo toog dëgg la waaye des fois day toog ak sa doom di ko cax birum góor ak jigéen da cax xale yi soo amee jëkkat def ko nii soo amee jëkkat def ko nii da ko toppatoo wéri da ci am solo waaye yaay yoo xam duñ wax ak benn doom xale yi ci bari tey yàqu nañ ci erreur barke Sëriñ Bamba xale yi bari na yàqule ci heure ndax xale bu jigéen nee na ma Tata Mbodj man jour bi ma bi ma jox sama jëkkër sax daa bi ma sama jëkkër jëlee pare damaa jël dara ba dem fóoti ko ndax da xawma lu xew xëy na sama yaay bu ci waxoon nag dinaa ko xam yow yaay néew boo tëddee andil ma darab néew la andil ma sër néew la góor ni ngay def ak moom xam nga foo koy jaar encore une fois Mbodj di ko doon yaay xale yi nga ko noppi yéen ma may xeex est-ce que xam ngeen li ngeen di xeex lan la yéen bi li muy liggéey ma sañoon benn sëy du tas barke si am du rek laa bëgg billaahi wallaahi su ma sañoon ci même réew benn sëy du tas couple yëppay neex ñëpp di dund mbégte teraanga di béggal seen jëkkër di kontaan jabar di kontaan lii moo tax ma sonn ngeen ne noppil ma mboo jë musuma noppi bu dee maa ngi nooy barke Sëriñ Bamba ma yaakaar bu ma yàlla rayul suba gu ngeen xëy ma gis may circulé ci digg dëkk bi pour la may noppi te dimbale xale yi xale yi jommi man war naa mën a sëy jom man nopp la fuuf man nga doon gentleman ma nekk ak yow mu war a neex may gëm mel ni ku mu yor ku yor ma ci tubat ma xool ba sama xef yi ruus ci suuf <laughs> bu jëm bàyyi nag yow nag jar wax leen nag man ñu toll ni dootul ma fi wax ci àdduna bi waaye kenn du ma noppiloo ci kattanu yàlla nga xam ndax damaa xam ne may wax dama koo xam xale yaa ngi continuer di tële ba léegi kon nag kaay seen yaay ngi amul sens interdit lu ngeen soxla laaj nga yokku bu réglé ko man damay réglé sa problème ba du taamati problème man la xale bu jigéen bi damal say toogal tee sa jëkkër noo koy teewee kaw lal bi toggal joxal mu lekk joxal mu naan tàkkal digg lal bi di ko jox du bañ a nga forcé ko ko di ko ko njett ba muy wuti wàllu moom la moo ko moom moo la takk il faut ngeen dagaase kersa gi il faut ngeen taal lamp yi il faut ngeen nekk seen borom kër yi bëccëg il faut ngeen di gisee seen borom kër yi fu ñu ko boo dindi kersa waaye rus sa jëkkër ba buy tëdd ak yow doo ko xool da ngay gëmm musuma gëmm man damay ragal sa xajjaare ba mu jigéen nag ma jaare fa ne xajj continuer doo ko xool xool ni mu neex xool ko nopp ni mu neex xool ko daf neex lool ñu <laughs> neex waaw ma lay xool mi neex del tal lampi del sànneeku del filaale dëbb gën ay yow dëbbal ma kuur gi ci gën gi ba mu damm ca ma boole ci di la xool nii taal samay lamp fayum lamp bi ngeen di baax day yokk kersa lii di léegi sax hôpital ku ci juddu xaj ngay def topp lamp ba jamono changé nga changé ànd ak moom bégal leen góor ci biir néeg yi man musuma gëm dama lay xool ba nga yaakaar damaa damaa génn àdduna da ngay yaakaar sax ne plaisir ba damaa dépassé ba ma génn àdduna musuma génn àdduna maa ngi ci biir àdduna dama lay xool parce que rusuma la sama jëkka nga danga maa tàkk sama yaram amul lu ma la ci nëbb parce que Serigne sama yaram bii amul lu ma la ci nëbb man lu la neex xoolal lu la neex def yaa ma takk ci farataak sunu dafa lu la saf tool bi sa tool a bayee ko nu la neex bu la neexee bay góos bay duraat bay ci diggante ba eh la <laughs> yaa ko moom kon dafa lu la saf man pour yow la ba ma yàlla di sàkk pour yow la ni may booji mii yow laa ko wàcceel nekkal ak moom takkal ku takk ko ngeen saytu farataas sunna na neex bégalante leen doom ju ci juddu nga am ci yàlla am ci yenent bi yàlla gërëm na ndax sëy nga nekk jéeg jox leen ma nopp bu leen kenn découragé loo bu leen kenn découragé loo bu leen kenn tax a bañ maman Mbodj man la ku ci topp di nga xam fi ngay jaar ba teg sa tànk lu yaay ji a wax ba deen koy nëbb yéen seen yaay am ci yéen kersa ba bu ngeen amee problème da ngeen ko rus a wax boo jàngi maa yaay xale yi jox leen ma nopp wax leen fi ngeen di jaar neex neex bi ci digg néeg bi neex neex bi ci kaw lal yi neex lal neex neex yi ci balcon yi yi ci duus yi salle de bain yi waañ yi yëpp da leen topp ak sooy di ko rëgëj rëgëjee ba dëkk bi wàcc bu tax ñu naan du sëy bi wala meer bi góor rek la ku bëggul góor looy bëgg jigéen bi bëggul góor lan bëgg góor rek nga wër a bëgg tarkala muy góor gi la lew di sa jëkkër nopp la nga nopp ko yaa ma nopp ma nopp la yëf yi nobante la nobante leen ba mu neex ta caga rek yem ci sa jëkkër ab jeeg day caga de ko ca dëbb ca kuur gu ca gënd ga ba ko riitale ko riitale ko ba ba gënd ga doon ñetti xóot xóot sama fu de damay sëy sama jëkkër la maa ko moom boo jaa wax li di xaar leneen ñaaf